ma agir Thierno Bocoum moom nag eh, donte sax yóbbu woon na deuxième ca conseil constitutionnel neen daf koy mujjee teg ci suuf mujjee bàyyi eh, donte nee na eh, matal na parrainage bi li ñu laaj ndaxte nee na am na lu toll ci soixante-sept mille signature di juróom den fukk ak juróom-ñaari junni ci signature kon matal na waaye daf fekk ne rek li mu gis moo di ne opposition bi dañoo war boole seen doole ngir nag mën fee jëlee Macky Sall ndax booloo mooy doole si lu jëm nag ci ku jàppale nee na ñu ngi waxtaan xamaguñu nag ban dogal lañ ciy jël ci jàppale ci wote yooyu dañ koy déglu moom Thierno Bocoum jël ginnaaw ba ñu comme lu ngeen ko xamee ba ñu euh, defee suñu parrainage euh, matal ko euh, dem daal di jël suñu def suñu turu mouvement boo xamante ne coalition boo xamante ne moom la ñu war a dem élection yóbbu ko conseil constitutionnel si la ñu nag waxtaan suñu biir si lañ gis ne ni tey condition yi yi war a mën a tax ñu daal di jële fi le président Macky Sall condition yooyu xaw na des pour opposition bi parce que moom néewu na ñu ànd ak moom impopulaire na waaye ñun war nañoo gën a taxaw war nañoo gën a organiser wu. moo tax ñun dañ ne lii mën a tax loolu am mooy ñu dajaloo ñu def ay pôle yoo xamante ne yu am doole la yu yokk confiance sénégalais yi pour ñu génn ñu voter massivement donc loolu euh, dañ ne kenn duñu fi jiitu su dee jar na ko ñu def sacrifice buy war a mën a tax ñu mën a taxaw euh, bokk ci coalition bu dëgër bu rëy boo xamante ne dina mën a indi solution. coalition bu dëgër boobu euh, ngeen di dugg ban candidat la agir nar a jàppale léegi. waaw loolu amul dara luñ fi décidé lu ñu wax mooy ñun tey suñu cër la ñu xool li gën ci Sénégal ñu def ko donc ñu ngi étudier loolu euh, waxtaan ci suñu biir ba nga xamante ne dinañ mën a tànn euh, coalition boo xamante ne su ñëwee dina indi rupture yu tax ñuy wax yoo xamante ne moom la ñu bëgg pour suñu réew. mu nekkoon euh, Thierno Bocoum euh, jite mouvement bii di agir xibaar bi moo di nekkoon teg na ci suuf bokkam ci wote yi war a am ñaar fukki fan ñeent ci weeru février bi ñu dëkk.